soxna mareema kunta soxna mareema kunta mi ngi gane àdduna ci atum 1891 ci dëkk bu sell bi di Touba soxna mareema kunta doomu ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiim la ak ku ñuy wax soxna awa buso soxna mareema kunta am na ñett ñu mu bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñeent ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ aafiya ñang ibnu maam awa buso ak kii di sëriñ ahmadu ñang sëriñ aafiya ñang mi moo jur kii di sëriñ moodu maamun ñang ak magam ja soxna faatumatu mbàkke bintu soxna awa buso bintu xaadim rasuul soxna faatumatu mbàkke moomu dafa teel a génn sax lii di àdduna ci jamonoy ko baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim moo wax ñu denc ko ci mbàkke bawal ci quartier bi tudd kuude ci mbàkke bawal foofu lañ ko denc ak magam ja cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu xaadim rasuul ibnu maam awa buso ak moom di caatum maam awa buso ma di soxna ma kunta bintu maam awa buso bintu rasul kon ñett la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak kenn kum bokkal waajur wu jigéen muy sëriñ aafiya ñang ibnu sëriñ ahmadu ñang ak kii di maam awa buso sëriñ aafiya ñang moomu mooy waajur sëriñ moo moodu maamun ñang ñooñu la kii di soxna mareema kunta mbàkke mi bintu seexul xaddim bokkal waajur wu jigéen keroog bi mu matee am lii di aw tur wala bi mu ganee àdduna ci atum 1891 tombe woon ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim nekk ci dëkk dëkk bu sell bi di Touba am na diggante bu sëriñ Touba seexul xaddim génne woon lii di dëkk bi demoon ci dëkk bu ñuy wax ndeer naar ndeer naar gi sax mi ci wetu dëkk bii di ngaay mexe am na sëriñ bu fa nekkoon ku ñuy wax sëriñ siidi xoya kunta sëriñ Touba seexul xaddim daana fa dem ay yoon di seeti kooku yoon wam fa demee nag bi mu ñëwee la fekk kii di soxna awa busa am lii di gan rakku sëriñ siidi xoya kunta moomu ñu ko doon wax soxna mareema kunta bu seexul reer naar soxna soosu da koy toppatoo lu bare bari di ko sàmm di ko nemmeeku ba ni seexul xaddim di jógewaate ci dëkk boobu di ndeer naar mën a delsiwaat ci dëkk bu sell bii di tuubaa keroog nag bi mu jógee ci dëkk boobu delsiwaat tuubaa la fekk nag soxna awa busa mi am gan mu nekk ku jigéen mu fob tur wii di soxna mareema kunta tudde ko naar boobu kon rakku kii di sëriñ sii di xoya kunta la ko tudde nekk ci dëkk bu ñuy wax ndeer mi ci wetu dëkk dëkk ñu koy wax soxna Mareema Kunta di rakku sërif boobu di sëriñ Sidi Xoya Kunta nekkoon ab sërif bu nekkoon foofu ci ndeer naar nekk itim ci wetu dëkk bii di ngaay mexe sëriñ Sidi Xoya Kunta muy càmmi ñu soxna Mareema Kunta miñ tudde soxna Mareema Kunta moom seexul xaddim mu jur waa juru naar bi ñuy wax jullit kunta jullit kunta nag ci ndajey yoonu murid yi bari na lool ci ñu ko xam ndax lii di image yu yi wala màggaluk Tuuba wala yenn murid yi dana ci teew sëriñ Dullit Kunta moomu maamam la ñu duppee soxna Mareema Kunta soxna Mareema Kunta ganee àdduna ci dëkk bu sell bi di Touba ci atum 1891 ñu teg ci lu tolloog ñeenti at ci atum 1895 ba sëriñ Touba Seexul Xaddim mi waajuram bàyyi koo ci dëkk bu sell bi di Touba dem ci dëkk boobu ñuy wax Mbàkke Baari Jolof ab diir la fa def am fa xat-xat kii di maam Abdou Lo ci kalaame gum ko kalaame wala tuumaal gum ko def ba tubaab bi dugg ci ñu convoqué seriñ Tuubaa Seexul Xaddim ci dëkk boobu di Ndar ginnaaw Ndar géej nag tubaab bi yóbbu na ko ci réew mi di Gabon laata muy dem Gabon sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim faboon na njaboot gi dénk leen maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru ñenn ñi mu jox leen kii di Seex Ahmadu Ndumbe Xabbaan ñenn ñi sëriñ Tuubaa wax leen ñu toog fi ñu nekk muy fu ñu mën a jaamoo seen borom bam dellusiwaat ci tukki bi njaaréen maam Cerno Ibrahima Faati soxna Mariama Kunta nag booba mi ngi toll ci lii di dal alxuraanul karim kon juróom ñetti bant yi fi sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi woon di dem ci géej gi kii di soxna mareema kunta ca la bokkoon waaye soxna mareema kunta mi ngi woon ci loxoy sëriñ ndaam abdourahman lo ndax foofu la nekkoon di jàngale di alxuraanul karim juróom ñetti bant yi fi sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi woon mooy cheikh mamadul moustapha mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddim cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddim cheikh mouhamadou lamin baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddim jigéen ñi moo nekkoon soxna fatja mbàkke bint bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim soxna assu mbàkke mbàkke kajoor bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim soxna ummi mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim soxna ummi mbàkke mi sëriñ ma yaasin ummi jëng lañ ko joxoon soxna faati mbàkke bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim sëriñ omar mbàkke bu mbàkke kajoor lañ ko joxoon soxna faati mbàkke moomu sax moo jur sëriñ moodu mbàkke gelongal ak moom moomu di soxna mareema kunta bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim kon juróom ñu jigéen la fi sëriñ tuuba seexul xaddiim bàyyi dem ci ci géej gi ak ñett ñu góor muy juróom-ñetti bant bim matee dal lii di alxuraanul karim moom soxna mariama kunta bintu sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ ndaam abdurahmaan loo lañ ko joxoon ci ndaam daaru xalimul xabiir foofu la jànge alxuraan bu bind lii di kaamil bi ginnaaw bi nag la ñibbi siwaat ci loxoy waajuram soxna awa so bim matee dem kër moom soxna mariama kunta sëriñ tuubaa seexul xaddim moo ko jox jarbaatam sëriñ masayer silla sëriñ masayer silla mi doomu soxna assu mbàkke la soxna assu mbàkke Mamor Anta Sali Mbàkke la kon Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ab jarbaatam la jël ko doomam ji di soxna Mariama Kunta ngir mu dem fa liggéeyal suñu boroom ci li ñu tudde wàllu kër soxna Mariama Kunta am na fa lii di ak njaboot ak kii di sëriñ Masayer Silla ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna mbenn Silla sëriñ Maxtaar Silla ak sëriñ Sadeex Silla soxna Mbeen Silla mi bi matee dem kër sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma lañ ko jox mu am ak sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñaari bant muy ku ñuy wax soxna Mariamu Mbacke bintu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak ku ñuy wax soxna Maam Faati Mbacke Nayde soxna Mariamu mbàkke mi moom sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma bi mu matee dem kër sëriñ moodu assu mi taawub sëriñ moor soxna lañ ko joxoon am naa ak moom sax lii di ak njaboot ginnaaw sëriñ moodu assu moomu nag lañ ko jox sëñ abdourahim dem bu njaareem mu jur sax doomu sëñ abdourahim dem bi ñuy wax sëriñ mustapha dem ñaareelu doom boobu mu am ak sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma di soxna maam faati mbàkke nayde bi mu dem kër sëriñ maam moor mbàkke ma sàmba lañ ko jox soxna mbenn si la moom mi waajuru soxna mariama mbàkke ak kii di soxna maam faati mbàkke naynde ginnaaw bu mu jógee ci loxoy sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma nag ku ñuy wax sëriñ moodu sekk taqe lañ ko joxoon sëriñ moodu sekk taqe mi sax jarbaatu sëriñ moodu faa jama ñang la am naa kii di soxna mbenn silla ñetti bant ñaar ñu góor ak kenn ku jigéen ñaareelu doomu soxna mareema kunta mooy ku ñuy wax sëriñ maxtaar silla moo yoroon sax lii di ak ndonoom ba ci at mii di laan 2008 moo di waajuru kii di sëriñ fàllu silla mi yor ndonol soxna mareema kunta jamono ji ak lii di ay rakam sëriñ fàllu silla moomu moomu sax sëriñ maxtaar si la mi waajuram bi fi sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke bàyyi ko bu soxna mareemu kunta nekkoon góor sëriñ maxtaar si mooy nekk xalifa général des mourides ndax moo magoon ci mbooleem sët sëriñ sa dex si la moo ñetteelu doomu soxna mareemu kunta bu mu am ak kii di sëriñ sayer si la moom nag ci ak tuut tànk la ñu dëddoo moom doomu soxna mareemu kunta bintu seexul xaddim ak kii di sëriñ sayer si la sëriñ sayer si moomu ñu joxoon 1913 bi sëriñ tubaa seexul xaddiim di sanculoo mag ñi lii di ay dëkk moom moomu sanculoo woon nañ ko ab dëkk mokku ñuy wax sëriñ aafiye ñang ak sëriñ aafiye buso ñoom natt la sëriñ tuuba seexul xaddiim boole woon ndigal li na leen bu ngeen demee ba ci penkub tuuba ngeen sanc fa ay dëkk te tudde ko bustaanul aarifiina dëkkub sëriñ maxtaar la foofu la soxna mariama kunta nekkoon foofu sax la génnee àdduna di bustaanul aarifiina googu waaye dëkk boobu dafa mujj gent bi sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke toogee xalifa général des mourides te doon nataat lii di dëkk bi bim ñëwee ba tolloog foofu la joxaat ñetti njaboot yooyu yi sancoon dama bëgg ngeen dundalaat ko am na ñenn sax ci njaboot yi ba tey bustaanul aarifiina lañ wéy di tudde suuf soosu waaye waa kër sëriñ maxtaar silla riyaat lañ tudde foofu ñu koy wax tuuba riyaat riyaat tubaa riyaat nag ab dëkk la bu nekk ci arabi saoudite moom lañ tuddee foofu kon waa kër soxna Mariama Kunta am nañ foofu suuf wala ci tubaa riyaat googu sax lañ koy fàttalikoo moom soxna Mariama Kunta jaareele ko ci sëtam bii di sëriñ Fàllu Silla ginnaaw bu sëriñ Sayer Silla sancee dëkk boobu di bustaanul aarifiina ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim foofu la yóbbu woon kii di soxna Mariama Kunta foofu la nekkoon ak moom bustaanul aarifiina nag mi ngi ci penku Tuubaa ci yoon wii di yoonu Daaru Raxmaan mortada bi nekk foofu booba foofu la soxna mariama kunta nekkoon foofu sax la génne àdduna ci atum 1922 sëriñ tubaa seexul xaddim laaj lu lii di njabootu soxna mariama kunta gi di wax ne nañ ko ko indil ci njaareem booba soxna awa buso miy waajuru soxna mariama kunta mi ngi booba foofu ci njaareem seexul xaddim biñ indee ñooñu daf leen wax ne nañ leen jox seen maam ja mu yar leen wala ñu nekk ak moom muy kii di soxna mbenn mbàkke bintu soxna mariama kunta sëriñ maxtaar silla ibnu soxna kunta ak kii di sëriñ saddeex silla ibnu soxna mareema kunta soxna awa buso mi seen maam ndax moo jur seen waajur soxna mareema kunta moom moo leen yor foofu ci njaareem ci ndigalul ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim lu tolloo ay at ci atum 1925 jàpp 1926 am na feebaru pes bu amoon foofu ci njaareem nekk nag feebar bu metti ba gouvernement bi sax sàkk woon na képp koo xam ne nii feebar bi dal na la boo faatoo dañu lay taal ngir bañ nga wàll kaneen sëriñ tuuba seexul nguur gi ne aw nitam moom nañ ko ko jox moom xam na nu muy defak ñoom maanaam bu fekkee ne am na benn taalibe murit bu bokk ca feebar boobu génn àdduna bu ko kenn taal moom nañ ko jox aw nitam xam na nu muy def ñoom sëriñ maxtaar si la feebar boobu mucc ci woon ba daloon na ko foofu ci njaareem maamam ja di soxna awa bu ñëw na ci ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim di ko wax ne maxtaarum soxna mareema kunta lii di feebar bu bon boobu moo ko dal seexul xaddiim keroog bindoon na ak ñaan jox ko kii di soxna awa buso ne ko soo demee nga def ko ci ndox jox ko maxtaar mu naan ko noonee ko seexul xaddim waxe woon soxna awa busa mi maamu sëriñ maxtaar silla bi ñëwee itam noonu la ko defee jox ko ko sëriñ maxtaar silla nag feebar boobu mujjoon na ca wér ba dara dalu ko bayit ya moo nekkoon salaatu salaatu ala googu sax ginnaaw bu seexul xaddim wooloo kii di soxna awa busa jox ko ko ne ko mu defal ko maxtaar silla cim ndox jox ko ko mu naan seexul xaddim woolu waatoon na mag ñi joxaatoon leen salaatu ala nabi jooju defoon ko ci àlliwoo di wax ne na ko kenn ku ne mokkal ku ko mokkal feebar bi dañ ca mucc nabi googu sax ci at mii di lan 2006 jàpp lan 2007 dafa am benn taalibépp sëriñ maxtaar silla bu ñuy wax cheikh birahim jaañ ndar la nekkoon bi sëriñ maxtaar silla nekkee ci wéradi gi la ko woolu woon mu ñëw ngir mu jege ko di ko laddanti am na benn bis mu toog ci wetam di jàng xasida googu wala way yooyu di salaatu ala nabi gi sëriñ maxtaar silla keroog laaj na ko cheikh birahim fan nga jëlee yi way mu di ko wax ne dama ko romb ci jumaa ji rek wecceeku ko sëriñ maxtaar silla keroog sax wax ne xasida gii de maa tax sëriñ tuuba seexul xaddiim bind ko ndax kat ci njaareem feebar bu bon boobu ñu tudde feebaru pes moom moo ma daloon soxna awa busa moo demoon ci ku baax ki sëriñ tuuba di ko wax ne man mi di maxtaar silla de feebar boobu moo ma dal seexul xaddiim keroog la bind bayit yi jox ko soxna awa buso di ko wax ne boo demee nga def ci ndox defal ko maxtaar silla jëlaatoon na sax àlliwa bindaataat ca ya joxaat ko ñenn ca mag ña fa newoon ngir ñu jàng ko mokkal ko ne ko xasida gii de man mii maa tax ñu bind ko annabi ga moo nekk nii ñu teewlu ko aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma yaa man axnaytani bika wa bi kitaabika wa bi rasulika wa bi sirrika almasuuri mastuuri salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aqnini bika amma yuhriju ilaa kon bayit yooyu mooy bayit yi sëriñ tubaa seexul xaddim bindoon ci feebar bi amoon njaareem di feebaru pes feebar boobu sax moo daloon sëtam bi di sëriñ maxtaar silla dal googu mu daloon sëriñ maxtaar silla te maamam ja soxna awa buso mi ko yoroon ñëwoon ci moom di ko wax ne sa sët ba maxtaar silla feebar bu bon boobu da koo dal ci la seexul xaddim binde woon bayit yooyu ginnaaw feebar bi sax sëriñ tubaa seexul xaddim waxoon ne kii di soxna awa Touba ngir ñu nekk fa féeg diir bu néew nag danaa leen fa fekk soo demee na nga dem kër Afia ñan nga toog fa soxna Awa Buso bi mu ñëwee tuuba fi mu nekkoon mooy fi tolloo gaar bu ndaw ci mbedd mu jëm daral gi kër gi foofu la tolloon jamono jooju kon foofu la nekkoon ak sëriñ Maxtaar Silla soxna Mbeeñ Silla ak kii di sëriñ Sadeex Silla muy ñett ñetti doomu soxna mareema kunta yim fi bàyyi ci tuutànk mujj gi na kër gi toxu na ba nekk fii sëriñ moodu maamun ñang nekk te yoon woowa sax soxna aw bu sa seexul xaddim mi ngi koy wax ne soo demee ba egg naa ko yëg yónnee la lii di sab dund soxna aw bu sa sax noo ne ko seexul xaddim waxe ni la ko defee bim ñëwee ba egsi mi ngi yónni woon waajuru sëriñ elaaji mbàkke bu sëriñ moor doj keroog soxna aw bu sa ma ngi koy wax ne soo delloo njaareem nga dem ci soxna aminta bu sa kandi muy waajuru cheikh abdou xaadir mbàkke di ko wax ne mu yóbbu la ci seexul xaddiim te di ko wax ne maam moo la yónni ndax kan maam awa busoo sa bàjjen yi maam lañ ko daa woowe noonee ni la ko waajuru sëriñ elaaji mbàkke bu sëriñ moor doj defee ñëw jaar ci soxna aminta busa kandi di ko wax ne maam moo ma yónni muy maam awa busoo naa wax na seexul xaddiim egsi na soxna aminta kandi buso moo ànd ak waajuru sëriñ elaaji mbàkke moor doj mi yóbbu ko ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim seexul xaddiim joxoon na ñetti fas-fas di ko wax ne damal toog kër Aminta Kande Bousso ba ma yeewi la nga doogu ñibbi laata bis bay dellusi seexul xadim ñibbisi na Tuuba kii di soxna maam Awa Bousso di maamu sëriñ Maxtaar Silla di waajuru soxna Mareemu Kunta ak ñibbiseem Tuuba feebaru pes boobu daloon sëtam boobu di sëriñ Maxtaar Silla ci la jaare ba ñibbisi jóge njaareem ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuuba seexul xadim doomam jooju di soxna Mareemu Kunta bintu seexul xadim ku jege woon waajurum wii di sëriñ Tuuba seexul xadim la ndax xam ngeen na seexul xadim laal lii di fuddën léeg-léeg te su ko masaa di def kii di soxna Mariama Kunta mooy ki ko ko daa defal ginnaaw bu fi soxna Mariama Kunta bàyyi ko seexul xaddim bu ko masaa bëgg a deflu wala bu ko masaa bëgg a def kii di waajuru sëriñ ceex Ceerno Buso bi nekk ci barabu cheikh Abdou Xaadir Mbàkke moo ko ko daa defal ci ginnaaw bu fi soxna Mariama Kunta bàyyi ko ku yéeme la woon moom soxna Mariama Kunta ku meloon ne maamam ji soxna jaaratullaahi la ba kii di sëriñ Moodu Xari Buso moom sëriñ Masàmba Buso moom sëriñ Buso be Buso dafa defal na ko marsiya bu yaatu di ko méngaleeg maamam ji soxna jaaratullaahi di ko wax ne ni nga mel itam neex na sa waajur wa ci mokkaluk alxuraan gi nga ko mokkal teel a wattu gi nga ko def ak nuru gi nga nuru sa maam ja soxna jaaratullaahi loolu itam taxoon na moo soxna jaaratullaahi mii maamam ñoo tolloo lu ñu dund fanweeri at ak ñett dong nag lu dund ndax nuru gum nuru maamam ja soxna jaaratullaahi moom soxna mariama kunta loolu itam taxoon na ñim bokkal ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim wala lenn ci mag ñi duppee nañ ko lii di ay doom moom soxna Mariama Kunta ñu ràññee ci kii di cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ndax cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Serigne Touba Cheikhoul Khadim moo ko boole woon ak soxna Mariama Kunta nekkoon na nekk sa jigéen ba tax na ku masaa wàcc ci kër cheikh Mamadou Moustapha ci wàllu jigéen soxna Mariama Kunta mi moo la taxawu ba ci taawub cheikh Mamadou Moustapha Mbacke soxna Mariama Kunta lañ ko tuddee muy soxna Mariamu Mbacke bintu cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ak kii di soxna Aminata Lo mooy magu Serigne Mbacke Madina ndax ñoo bokk benn waajur wu jigéen kii di cheikh dul faadal mbàkke mi bokk ak moom waajur góor ak waajur wu jigéen itim tudde na ko ñeenti bant kenn ki mooy soxna mareema kunta ñu gën koo xam ci soxna kunta sërif asan faal moom mooy ki ko yoroon baneen soxna mareema kunta bi cheikh dul faadal tudde rakkam ja soxna mareema kunta mu ngi woon daaru moxti ba nëgëni sax mi ngi daaru moxti yàlla na suñu borom guddal aw fanam ñetteelu soxna mareema kunta bi ko cheikh mamadul faadal mbàkke tudde mooy ku ñuy wax maam mareema mbàkke ñeenteelu soxna Mariama Kunta moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke dafa génn lii di àdduna ci ak tuut tànkam kii di Cheikh Mamadul Lamin Baara Mbàkke moom Sëriñ Tuubaa Seexul ko juróom-ñetti doom ndax doon na wax ne kat kii di soxna Mariama Kunta bu fekkoon ne yaatu lu ma ci soowum soxna Awa Buso du ma nàmp moo tax juróom-ñetti weer yi Cheikh Mamadul Lamin Baara Mbàkke nàmp ci soxna Awa Buso weer wu ne turandoo lu ko tudde soxna Mariama Kunta ngir di ko ko faye ci soxna Mariamay Kunta Cheikh Mamadul Lamin Baara yooyu sax am na ci koo xam ne nii daaw jéeg dong la génn lii di àdduna cheikh abdou xaadir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim duppee na ko lii di doom lii di mag ñi toppoon sëriñ tubaa seexul xaddiim itim ñi ci bari duppee nañ ko lii di doom moom soxna mareema kunta mareema yu bari ci yoonu murit ak lii di kunte yi soxna mareema kunta lañ ko duppe yàlla na suñ boroom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem moom doomu seexul xaddiim boobu kon ci loolu la sax di liggéey boole gone yiñ ko jox mu di leen yar muy sa bàjjen booleel muy liggéey ci wàllu kër di sëriñ sayar silla di jarbaatu ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ba ni mu génnee àdduna ci atum 1922 sëriñ tuuba seexul xaddiim moo wax ñu denc ko ci guy texe keroog biñ ko dencee ba ñëw kii di sëriñ moodu xari buso defal na ko marsiya bu yaatu di ca tagg melokaanu kii di soxna mareema kunta ci nu mu mel ni mu nuroo maamam ja soxna jaaratullaahi ni ñu tolloo ay at yu ñu dund muy fanweeri at ak ñett ni mu wattoo alxuraanul karim ni mu nuroog maamam ja ñu lu marsiya bi ko sëriñ yi bu buso defal sëriñ du xar moodu xari buso nag doomu sëriñ ma bu buso la sëriñ ma bu buso ak sëriñ mbàkke buso ñoo bokk waajuru góor ak waajur wu jigéen ngir bëgg képp kuy jullit su déggee lii xam ne soxna mareema kuntakat jàmbar la woon lii di mareema yiñ ko tuddee wala ñi ñu tuddee ku ñu tudde soxna mareema kunta ñu xam ne seen bàjjanu bàjjankat nii la nekke woon ajaban bi masaiba muhlikatin lil fata wa nawaiba tusmika abdin farin qubhan li dahrin jairin yisjil anama bihatmihim karhan wama min aasmi ahin ala faqdi lkarimi mariama alxayrati kullan suwidat bi makarim alqud ahmada shaykhina wa xiyaasina nabki alayka bi daimi ummul yatama xisna kulli muminin qad jaaha wa abika gunmun aadin xasanatuha la tuxsa lana lakin waman qad shaabaha al abwayni laysa bi zalimin la zala suxba lutfi tusqi rawdaha min min rahmatillahi al-aziz ar-rahim salawatuhu wa salamuhu abadan ala xayril wara taaha rasulil xaatim fil mursalina wa alihi kon marsiya boobu la sëriñ Moodu Xari Buso moom sëriñ ma Masamba Buso mi bokk ak sëriñ Mbàkke Buso waajuru góor ak waajur wu jigéen defal kii di soxna Mariama Kunta ginnaaw bu mu génnee àdduna ci atum 1922 ci bustaanul haarifiina bustaanul haarifiina nag mi ngi ci penk tuuba laataa ngay egg ci daaru raxmaanuk borom dër bi soxna Mariama Kunta nag ay xalifaam nii la tëddee ci atum 1922 2008 ku ñuy wax sëriñ maxtaar silla di doomam moo fi nekkoon toog toogaayam 2008 ba nëgëni nag sëtam bi ñuy wax sëriñ fàllu silla di taawub sëriñ maxtaar silla moo toog toogaayam ñu koy ñaanal ak i rakkam lii di seen darajay maam ja wuy si leen muy soxna mariama kunta bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim soxna mariama kunta bintu sëriñ tubaa seexul xaddiim am na bis bu ñu koy fàttaliku kii di doomam ji sëriñ maxtaar silla ginnaaw bu soxna mariama kunta génn lii di àdduna sëriñ tubaa seexul xaddiim joxoon ko maamam ja soxna soxna awa buso ci njaareem ak lii di tuuba ginnaaw bi nag dem na ci dëkk bu ñuy wax ngaay mexe foofu la ko cheikh dul faadal mbàkke dëeloon mi nijaayam cheikh dul faadal laata muy génn àdduna wowoon na kii di sëriñ maxtaar silla di ko wax ne kaay ma jox la ab bis nga di ko màggal bis bi nag ci la sa maam ja sëriñ tuuba seexul xaddim feeñoon lii di jamono muy fukki fan ak juróom ci weer wii di weeru baraxlu bis boobu nag dama bëgg nga di ko màggal te wane ko ba ñépp xam ne sa maam ja ci bis bii la ganee woon lii di àdduna loolu la mu dul faadal waxoon kii di sëriñ maxtaar silla sëriñ maxtaar silla sax daana ko màggal ci dëkk boobu di ngaay mexe foofu la ko doon màggale 1989 bi cheikh abdou xaadir mbàkke toogee xalifa général des mourides ki la ko woolu na ko ñëwal jege si ma lii di tuubaa dama la fee soxla 89 ba 2008 kii di sëriñ maxtaar silla màggal na ko ci kër gi di tuubaa muy kër giñ mën a tudde kër soxna ma kunta moo nekk ci ginnaaw kër sëriñ abdu mbàkke du yooli laataa ngay egg kër sëriñ du maamun ñang foofu la sëriñ maxtaar silla dëkk kër googu sax mooy kër soxna ma kunta ci misaal ci atum 2008 ba nëgëni nag taawa bii di sëriñ fàllu silla mi ngi waajuram boobu mu jotoon ci cheikh mamadul faadal mbàkke di fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru baraxlu ndax bis boobu kat la cheikh mamadul faadal waxoon mooy sa bisu bi mooy bisam ginnaaw 2008 bi fi sëriñ maxtaar silla bàyyi ko taawam ba di sëriñ fàllu silla na ca nag di ci kii di maamam ja soxna mariama kunta ak waajuram wa ak bis ba cheikh faadal joxoon wa muy ñetti bis yooyu la dajale di ko màggal ci tuubaa riyaat muy bisu fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru baraxlu bis bi cheikh dul faadal mbàkke joxoon waajuróomam wa na ko feeñal ko mooy bis bi sa maam feeñee lii di jamono muy ñett ñuy ñaan ci darajay soxna mariama kunta doomu seexul xaddiim ga ka mag ña daa xoolee niñ daa xoole soxna jaaratullaahi yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu sëtam yi mu fi bàyyi bi jaayi muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam amiin wa sallam amiin wa sallam amiin